ci fàttaliku ñun ba ñu nekkee école primaire école élémentaire di jàng xam-xam bi buñ ko doon wuti ci téere yi lañ daan dem di ko fa wuti loolu nag tey jii gis nañ nekk xëj na téere yooyu ñu ngi fi ba léegi centre yooyu itam yu ci bëri ñu ngi fi mais ndaw ñi ci seetlu bu ndaw ñu ci bëri tey jii nii joxatuñ ko xëj na solo ba nga xamante ne waroon nañ ko ko jox bésu tey bi nag daf ñu war jàngal ëxtal ñu teg ñu ci li nga xamante ne dañoo war a def ñun réhabilité mooy lu ñuy wax naan les centre de lecture et d'animation culturelle bi nga xamante ne mu ngi fi woon loolu nag dafa nekk ci ñun benn charge bi nga xamante ne dafa dañ ko war a boole ñun ci suñuy priorité duggal ko ci suñu plan d'action sectoriel culturel bi nga xamante ne war nañ ko tëral